bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfanaa bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk yi ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé mbokk yi gannaaw bu ñu sante buur yàlla subhaanahu wa taala na ngi julli ci sàng bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi ñu bokk sant yàlla moom mi ñu may xéwalu yeew ci nelaw mu doon xéwal ju mag ñi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala defal nañ ñu ko ba tax na suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu ne xéewal bi ni gannaaw bu ñu ko suñu borom tabaraka wa taala yenkeewal baaxee ñu ko bi ñuy jóge ko ci nelaw ñu yeew ci jàmm amul dara lañu war a def lu dul ñaan sant yàlla ca nëm ko jàngalee sallallahu alayhi wa mooy yan baat ngay tudd yow jullit bi gannaaw bi nga noppee ci nelaw bala yàlla nelawloo wee biig ci guddi boo yeewoo la nga war a njëkk tudd mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur moo ne mboolem xeetu cant yi ñeel nañ yàlla buur bi nga xamante ne moom dong moo ma defal lii ma nekkee woon ci waxtu su néew ci ginnaaw nelaw nañu huit heures temps ñii nelaw nañu neuf ñi de nelaw nañu dix heures de temps ala kulli xaalin kenn ku nekk su waxtu waa nelaw waxtu boobu yàlla atte ne loolu nga war a nelaw dara empêché wu dara loru la kon bu la yàlla delloowee sa ruux ba nga yeewu ci nelaw boobu lan la sa yonent diggal ne noonu nga war a def mooy nga tudd baat yi alhamdulillahi ledi mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana mooma dundal baada ma amatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla buur bi tabaraka wa mooy suñu delluwaay bu màgg bi buñu ñu ko ak dund bi ba tax na noonu la yenent bi joxoñal ngir nga songee sa bés bi noone boroom xam-xam su mag di xasanul basri ña yaree ci keppaaru ña yenent bi yar di sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain boroom xam-xam jooju mooy xasanul basri rahimahullah basri rahimahullah xasanul basri yàlla ko buur yàlla yokk yërmande nee na ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ne innama anta ayyamun bés yay ñëw di jaar di jàll moo fi tax a bàyyi ba tax na da war a bàyyi sa xel ne kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll zahaba baaduk am na lu mu yóbbaale ci sa jëmm am na lu mu yóbbaale ci sa dundin bés boobu dem na dañ na ci sa dund war nga war a dund fii ci àddina te dootu delsi kon bés boobu bu dee day dem te du delsi fexeel lépp looy def ci bés boobu na nekk lépp lu yàlla gërëm mu doon la koy neex moom yàlla buur bi tabaaraka wa ndax loolu rekk moo lay tax mucc loolu rek mooy tax nga dund bés bu neex mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon démb bañ doon taxawak ak ñu ngi toll woon ci aaya ba nga xamante ne aaya ba yàlla ne daa yónni yonentu bi ngir mu doon xiiwal ñeel mboolem bindaafuunam yi te mooy wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin buur bi tabaraka ne yonentu ne yónni bamala ma yónni du dara du lenn lu dul nga doon yërmande ñal mboolem mbindaafoo ni sallallahu alayhi wa sallam jooju nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee ñu ci hadis ba nga xamante ne moo dëpp ak suñu jamono ji tey nit ni nu ñu nekkee lenn ci société bi nit ñi nu ñu nekkee nekkin bu jéggi dayo nekkin bu raglu ñi nekkin boo xamante ne kenn ku baax du ko cautionné kenn ku baax du ko validé moo ne nekkin boobu mooy wan nekkin ki ko bëgg a xam na ñu topp ci waxtaanu fajar wi di jaar fi ci réew mi FM 97.5 su ko defee dina xam nekkin ba nit ñi nekkee te yonent bi ne ko képp ku baax njoon condamné nga ko képp ku lu yiwu ñor doo valide nekkin ba nit ñi nekkee ci jamono ji nekkin boobu mooy xadiisu sahaabi bu mag di abi hurayrata radiyallahu anhu ca la mu soloo nee na anna rasulallahi sallallahu qaal yonent bi sallallahu sallam daf ne kullu ala muslim xaraamu dammuhu wa irduhu wa maaluhu rawaahu muslim mbokk yi xadis ba ñu jàng ni mooy xadisu abi anhu nee naka suñu yenent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu baaxee nañu kullu muslimin bépp jullit ala muslim ci mbokk jullitam bi xaraamu damuhu tuur deretam araam na ko wa irduhu yàq deram xaraam na ko wa maaluhu yàq alelam xaram na ko ñu déggee ci maana xadis bi mooy yenentu bi sallallahu alayhi wa ma yàlla yónni ci xeet moo ko ne yónni ba ma ci xeet wi yónni bi ma ci sama mbindaafoon du dara lu dul ba nga fees dell nga nar kaa ak ñoom ba tax na lii lenn la ci yërmande ba yenentu bi tibbee fa boromam subhaanahu wa taala mu àndil ko mbindaafoonam yi jullit ñi moom pàcc bi ci yërmande jooju moo tax mu ne kullu muslimin bépp jullit bu góor bu jigéen bépp jullit képp kuy woowee boppam ne moom jullit nga yonent bi nee na ci sa mbokk jullit de araam na ci yow nga tuur deretam bépp jullit ak ci mbokk jullitam araam na ko muy yàq deram bépp jullit ci mbokk jullitam araam na ci moom muy yàq alalam nga déggee ci ne araam bu njëkk bi ci jullit jëmale ko ci mbokk jullitam la araam ci moom la araam ci jullit ak mbokku jullitam la ci jiitu mooy nga tuur deretam deretam danga ko war a sàmm danga ko war ñoŋal danga ko war a aar waroo def dara la tax deretu sa mbokku jullit muy kuule waroo def dara la tax sa deretu mbokku jullit muy toq waroo def dara lu tax sa deretu mbokku julit muy tuuru ba tax na yonent bi nee na bépp jullit ci moroomu julitam araam na nga tuur deretam anam bu munti génne loolu dalaa araam kon nanka muytu te yonent bi lépp lu mu ne loolu lu xaraam la fa yàlla loolu lu xaraam kon nalu lu xaraam xaraamee ci jullit tuur deretu mbokku julit noonu la araamee nanka moytu yow jullit bi ñaareelu araam bi sallallahu alayhi wa sallam ko ne yàq deru sa mbokku jullit dafa araam ci yow mi nga ni jullit nga kon mbokku jullit bi warut yàq deru mbokku jullitam dafa araam ci moom ci jëw ci yàqal ko ci fexel ko ci nax ko walla ci jaay ko doole walla xattaa ci yëfumaa tey loolu yëpp dafa xaraam ci jullit bi mu di ko jëmale ci mbokk jullitaam ngir yàq deram te yàq deret yàq der yafi nekk tuumalaati yafi nekk sosalaati yafi nekk wuññi wante sutura ya fi nekk ñoom dañoo déggut maanaa hadis bi wallahi bu ñu déggee maanaa hadis bi kenn du tuur deretu mbokk jullitam waaye kenn du fi nekk di yàq deru sa mbokk jullit di ko tuumaal di ko accuser di ko defal ay diffamation comme noonu lañu koy waxe di ko ŋaññi di wili lamu la kenn xam ko yooyu noonu yëpp nga nekkee di ko def lam lay njariñ dara kooko wax bu ko déggee et après voilà fa lay yem doo suur doo giix du la teree xiif du la teree naan au contraire am na ñoo xamante ne loolu ci lañuy amee seen dépense su kër mais nañu xam ne innama yaakulu fi butunihim naara loolu ñuy lekk seen biir nañu xam ne ñu fay lekk xalu safara su tànk jir nga dem toog yor sa micro yor sa téléphone jamonoy smartphone jamonoy internet ba ñu nekk ni nga wili pande nit ki ba doyal xaawi suturaam benn saay yàq deram ba kenn dootu ko mën a respect loolu lum lay njëriñ dara et après voilà bu dee dang ci góobee xaalis xamal ne xaalis jooju ngay jëfandikoo safara su yi ngay tàbbil sa biir ndax boo jëlee misaal bu gàtt rekk la ko def du la neex kon nga yëg ko bañ kaa yëg nga xam ko bañ kaa xam koo koy def xamal ne da koy métti kon nanka arrêté ci saasi gannaaw bi nga déggee xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxtaanu fajar bi jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 na nga arrêté jikko ji nga làmboo ndax yonent bi daf ne loolu daa araam ci yow kon stop ñetteelu araam bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wa maaluhu ak alalam nga sàcc alalam dafa xaraam nga nax jël alalam dafa xaraam nga jël alalam te yëgu ko dafa xaram nga tureyande ko dafa xaram nga jël alalam ci maa tey dafa xaraam nga jël alalam sans trace dafa xaram ñetti yonent bi neena dafa xaram ci jullit mu di ko jëmmale ci mbokk jullitam bu ci jiitu la jullit ak mbokk jullitaam mooy na nga moytu deretam nanga ko bañ a tuur ñaareel la ci jullit ak mbokk jullitaam mooy na moytoo yàq deru mbokk jullit nanga ko moytoo sosal nanga bañ a sosal nanga ko bañ a defal diffamation nanka bañ a waxal lala wóorul nanka bañ a waxal lu ñaaw nan ko bañ a wili pande waaye waaye nanka sutural waaw kañ yàq deram ci anam yi yëpp dafa xaram ci yow moo tax yonentu bi ne wa irduhu ak deram bul yàq deru sa mbokku dafa xaram ci yow sallallahu alayhi wa daldi ci di si teg ne wa maaluhu ak alalam dafa xaram ci mbokk jullit nga di ko sàcc nga di ko nax wala di ko tëriande wala di ko jële ci anam bi nga xamante ne du teyyi bakkanam lii nga dégge ci ne képp ku def infraction ci yoon la sart yi réew mi teg ci kaw ki yàq ki xëtt sartar réew mi ndawalu buur ya nekk ci kaw tali nañu jaar ak jëm jooju fa mbaxana doone benn waaye ñu bañ kaa wax ne lii nga may jox ci ko defee ma bàyyi loolu yaa ngi jël loo xamante ne alal la ci sa mbokku jullit waaye nekkul ci teyu ba kanam la la ko joxe bi léegi lii yëpp day tàbbi ci biir xadisu yonentu bi sallallahu alayhi su ko defee ñu déggee maanaa xadis bi mooy kullu muslimin ala muslim xaraamu dammuhu wa irduhu wa maaluhu bépp jullit ci mbokk jullitam yonentu ne yonentu bi nee na xaraam na ci moom deretam walla alalam walla deram sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nekkin bu mucc ayib nii su ko defee mu doon xeetu yërmande boo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ko baaxee mooñu ko andil ndax moom la yàlla wax ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónniwu ma la lu dul nga doon yërmande ci sama mbindaafooni sallallahu alayhi wa sallam kon ba léegi yërmande bu yonentu bi làmboo sallallahu alayhi wa sallam ca la ñuy desandi ñu xuusandek yéen jëm ci yërmande ba yonentu bi àndil mbindaafoonu yàlla yi rawatina jaamu yàlla yi waaye jullit ñi ñoom la yonent bi beral loxo ci yërmande boobu mu ne leen àndil sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi TV 97.5 ñu xuusandek yéen ba léegi dugg xool weneen xadis ba ñu war a toftal ci buntu bi mooy qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ma ruwiya an rabbihi azza wa jal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci lamu solo ci boromam subhaanahu wa taala borom bi tabaraka wa taala woote fii mu ne yaa ibaadi yéen sama jaami innakum tuxti'uuna billeyl wannahaar wa ana aghfiru zunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum rawahu muslim mbokk yi yërmande suñu borom tabaraka wa ta'ala yenkewal yenentu bi te yenentu bi jëlee boobu ci buur bu am yërmande bu kenn du natt ci jaamaam yi mu yónni yenent boobu yenkeewal ko yërmande bi nga xamante ne kenn mënu koo natt yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo bëgg a baaxee xadis bi calla mu jëlee ci boromam azza wa jal moo tax mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla sallallahu alayhi wa fii ma ruwiya an rabbihi azza wa jal ca la mu solo ci boromam buur bu kawe nee na yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo woote jaami ne leen yaa ibaadi yéen sama jaami innakum tuxti'uuna billeyli wannahaar yéen yéena fi nekk di jëf bakkaar yéen fi nekk di tooñ yéen fi nekk di juum ci guddi ak ci bëccëg yéen fi nekk di jëf bàkkaar ci guddi ak ci bëccëg yéen fi nekk di jàdd di jalgati ci guddi ak ci bëccëg waaye xam leen ne ànd ak loolu yépp ngeen nekke ci guddi ak ci bëccëg man yàlla may jéggal mboolem bàkkaar moo tax mu ne wa ana aghfiru zunuba jamian man yàlla may buur bay jéggal mboole mbàkkaari kon fastaghfiruni aghfir lakum fastaghfiruni na ngeen sàkku jéggal ci man yàlla aghfir lakum ma jéggal leen bi muslim moo ko solo mbokk yi ñu war a mën a déggee ci maanaa xadis bi ñaari élément yay tiim jaami yàlla di leen vidéo di leen caméra di leen photo mu nekk ñaari élément yay dundak doomu aadama bi ba keroog doomu aadama bi di génn ci kaw suuf si mooy guddi ak bëccëg moo tax borom bi ne ñu yéen doomu aadama yi yaa ibaadi yéen sama jaami mboolem seen innakum yéen a fi nekk de tuxtiuuna di moy billeyli ci guddi wannahaar ak ci bëccëg yéen a fi nekk di jalgati di xëtt samay sart di jéggi samay frontière di ma ci anam bi ngeen koy defe waaye nag jamono ya ngeen koy def moo xam guddi la moo xam bëccëg la na ngeen xam na wér ci yéen ne wa ana aghfiru zunuba jamian na leen wóor man yàlla may kay jéggale mboolem bàkkaar ya doomu aadama mën a def kon la am solo mooy fastaghfiruuni na ngeen fa man yàlla jéggal aghfiru lakum ma jéggal leen allahu akbar buur bi moo ëpp yërmande ci jaam ndax moo ñu bind moo ñu moom moo am sañ-sañ suñu kaw ci mboolem anam ba ñu nekkee te kenn du ko laaj yàlla lu tax waaye moom yàlla mooy laaj jaamaami ak dayo boo munte am sama jaam bi lu tax kenn du wax yàlla lu tax lii waaye yàlla moo am sañ-sañ laaj jaam bi laaj boroom xam-xam bi laaj chef d'état bi laaj boroom alal bi laaj képp ku yore ndombo tànk àddina bi munti doon lu tax yàlla dong nga sañ laaj nit ki lu tax waaye kenn mënut am sañ-sañ kenn amut sañ-sañ di laaj yàlla lu tax subhaanahu wa kon bu dee moom yàlla moo yenn sama jaami yéen a fi nekk di juum yéen a fi nekk di jalgati yéen a fi nekk di dëkkee jëf bàkkaar di moy ci waxtu ba naan guddi ak waxtu bañ naan bëccëg ndax kenn ku nekk ci ñun bu moyut yàlla ci guddi dina moy yàlla ci bëccëg ku moyut yàlla ci bëccëg xamal ne danga moy yàlla ci guddi ñaari climat yi kenn mënu ci tabbi te mooyoo yàlla boo ko xamee ak boo ko xamul kon yàlla mi xam doomu aadama bi moomaa yamuy mooy yàlla ci ñaari waxtu climat yakay tiim di ko vidéo di ko caméra di ko photo moy caméra bu ñu guddi ak caméra buñ ñu bitik ndax sa dund ci ñaari waxtu yi lañ ko tënk ba tax na yàlla mila tënk ci ñaari waxtu yi moo la ne yow sama jaam bi yaa fi nekk di moy ci guddi ak ci bëccëg waaye na nga xam ne man yàlla may ki jéggal mboolem bàkkaar kon nanga nga sàkku fa man yàlla jéggal ma jéggal la allahu akbar kon ñu ñu koy wax ne rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abraar yal nañu yàlla boole jéggal suñuy rëcc-rëcc yal nañu yalla boole sutural ci suñuy erreur ya ñu nekkee waaye bu ñu dee di dikkal yal nañu yàlla wërsëgal mu faat ñu ànd way nit ñu baax ñi ci kuréel ñu baax ni amin ya rabbal alamin kon yow doomu aadama bi ndegem xam nga ne danga dëkk ci di jëf bàkkaar danga dëkk di jëf erreur danga dëkk di moy yàlla ci guddi walla ci bëccëg yaa xam borom bi ne bul saalit te bul découragé xamal ne ana agfiru zunuba jamian man yàlla may jéggal mboolem bàkkaar ya ngeen nekkee di def man yàlla may jéggal mboolem bakkaar mboolem xeetu mooy yàlla ya ngeen di def lama bëgg ci yéen mooy na ngeen tàllal seeni loxo tuub na ngeen tàllal seeni loxo xam ne suñu buur bi di yàlla buur bu sopp kuy sàkku njéggal la fa moom kon buur yàlla ñu ngi sàkku njéggal fa yow yang lañ ñu jéggal yàlla nga ñu jéggal buur yàlla ndegem yaane yay jéggal mboolem bàkkaare kon ñu lay ñaan yàlla nga ñu jéggal suñu bàkkaar mbokk yi lii mooy la yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ne yenentu bi ne ci samay mbindaafoon du lenn lu dut yërmande ba ma la tabbal ngir nga war kaa mën a séddale ak sama jaame ñu nit ñu di géem góor góorlu ci daara ju mag ji di réew mi FM fas yéene séddale ak mboolem auditeurs yi yërëmande ba yàlla yenkee wala yonent bi ci waxtaanu fajar bi ñu fas yéene ko wittalantek mboolem ñañuy diglu kon yàlla ñu yàlla may dégg topp ñu nit ñu ngi nii di talal suñu loxo ñaan yàlla di ko ne allahumma rabbana faghfir lana maa qaddamna wa maa axarna wa maa a'lanna wa maa asrarna wa maa anta a'lamu bihi minna anta almuqaddimu wa anta almuaxir laa ilaha illa ant faslih lana sha'nana kullah amin ya rabbal alamin yal nañu yàlla boole nangul la ñaan bi di tekki mbokk yi waxtaan wi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a jébbal bërëb bi ñuy joxe xibaar ci tubaab ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla may dégg ak topp ja'alana allahu wa iyaakum min alladina yastami'uuna alqawla fa yattabi'uuna ahsana amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtaanina waslih la humma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu